jërëjëf salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci seen seen YouTube préféré Ngoy TV la chaîne de peuple jëm ji ñu toogal nag kenn dootu leen ko présenté Serigne Cheikh Fall Koriandé xam ngeen ko le marabout de Balla Gaye keroog bi ma fiy mujj combat bi desoon na ay 3 wala 4 mois mu ne ma Balla Gaye 2 day daan tafaatin ñu bari gëmuñu ko woon mais tey gis ngeen ko moom la ñu fas yéene waxtaanal tey laaj ko wax jooju mu waxoon avant combat bi ak après combat bi ni mu ko waxee woon noonu la amee ba pare dinañ dugg itam ci xam-xam ci wàllum seet wàllum faj aajo wàllum dindi doomu aadama itam ci xat-xat yëpp dinañ ko waxtaane tey am na lu ñu gis ci biir kër gi bi ñuy ñëw muy naaw muy tànn loolu yi dinañ ko laaj lan moo njëriñ bi sëriñ bi Koriandé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax coow li bari woon na fan yii de. <laughs> waaw asalaamaaleykum. waaw ah, siara ñep di bëgg ñep waaw mhm. ah, maa siar siyaar mu ndaxa Mbacké. Mhm. di ñaanal mu yagg fi lool. Mhm. Ah, di siar sëñ Amdi Modou Mbenda Fall. di ñaanal mu yagg fi lool. di nuyu suñu wasila Cheikh Seydina Aliou. waaw di ñaanal mu yagg fi lool. di siar ñep di bëgg ñëpp. waaw di siar aduna waaw di bëgg ñëpp di balu ñep ak nak tay bal ñep ak waaw jërëjëf Cheikh bi yow itam ñu ngi lay bal ak bu baaxa baax yow mo xamna yoralo ken ak ndax yow borom baax nga merci bi ciow li bari won na fan yi ci combat Balla Gaye Tapha ci wax jing ci waxon bobo bo legi xam nga diko di koriyande koriyande koriande koriande wax ah gars dagon sa video sax ngir yobula var mais mu jow dug var mm-hmm. lan ngay wax ci lolu waaw <laughs> man nag comme li may faral di wax rek. Mm-hmm. waaw man moom dama dul nit koy làmbatu. Mm-hmm. man làmb ji toll na foo xamante defatuma woon di Balla dama doon def man ngir sama réputation. Mm-hmm. waaw nuñ koy waxee. ndax dama am mi soxna. dama ami doom. te bu dul dara lii ma yor daa am ku ko yoroon muy sama waajur bu góor. te kenn mosu ko ci yàpp. kenn mosu ko gis mu wax lu amul waaw faji aajo ko ñëpp xame woon mosta wax luy dañ waaw man nag damaa làmbatuwul woon moo tax bu coow li lu mu bari bari bari damaa xamoon ne bu affaire yi amee bu soobee yàlla li ma wax dara du ko dindi façon kilifa bu ne nag woon na ma ñi nga xamante ne ndeysaan dañ maa yéene ñi sant Mbàkke ñi sant Fall ku ne di ma woo mm-hmm. waaw ñu ne ma sëñ bi ñun dey bu faralee Balla Gaye yow yaa tax mm-hmm. ndam tamit buñ ko buñ bëggee Balla gay daan yow yaa tax ndax yow euh, li nga wax ba pare te bëgguñu mukk mhm. nga am gàcce mhm. waaw barke maam Seera Fall dëgg la waaw te ñun tamit li tax ñu doon wax li tax ñu wax vidéo yi bari ñuy wax mhm. chaque jour li ñuy wax mooy Balla gay day daan ba ci jouru làmb ji suba teel dix heures ma génn def vidéo nee leen ndékki leen ba suur te dalal seen xel yi arbitre soufflé moo tee Balla Gaye daan loolu yëpp nag li tax ma wax ko damaa am fu ma ko teg waaw damaa damaa làmbatuwul dëgg la waaw bu doon damay tëll tëll di wax rek du ma jël sax benn euh, risque yi ndax na sëriñ soo ñu bëri dañ ma doon woo seen vocal yaa ngi fii ku ma ci woo dañ may naan sëñ bi bëgguñu nga dem vaar ndax gis nañ ne tafaatin day daan buñ ma waxee loolu li leen di tontu loolu ci xam-xam ngeen ko wala ci doole tafatin bu fekkee doolee tafaatin ngeen ko teg loolu yeneen o maanaa daf ñëpp tafaatin lañ jàpp ne mooy daan mhm. mais bu dee ci xam-xam ngeen ko teg mhm. Balla Gaye day daan ndax làmb bi mu taxawee sama mhm. làmb sax day day baax ci tafaatin mënoon naa baax ci tafaatin dem ba ci biir géew mu baaxee ci Balla Gaye waaw mais bi mu taxawee ba léegi képp ku mën a seet ci Balla Gaye la baaxee ci Balla Gaye la baax ci Balla gay la baaxe mais pourtant ñëpp dañu ne woon tafaatin moo teye ndam li ba ci biir géew bi lañ ko nangu loolu ñooñu dañ koo teg ci ci dooley tafaatin rek ok ni Tapha Tine toll. ak victoire yi mu tegle. ak Balla Gaye tolof tolof yi mu nekkoon. fa la gars yi doon di wax. mais bu ñu ko tegoon ci xam-xam mhm. làmb ji buñ bi mu taxawee ba léegi mhm. ci côté Balla gay la baaxee mhm. amul benn côté man tout le temps dama doon seet tout le temps dama doon seet tout le doon seet làmb ji bi mu taxawee li may tëdd ci lal bariwul làmb ji bi mu taxawee ba des deux semaines fanaanu ma ak sama soxna samay soxna dina ma dégg fanaanu ma sama kër yaay damay wéet man kese guddi man rek maay tëdd nekk ci làmb ji di xool ndax boobu wax naa ba pare te bëgguma mukk ku ma yàpp ëllëg ñu ne coriandre moo fi waxoon lii te amul loolu laa doon bañ mhm. moo tax làmb ji man maa ko gënoon a bëgg Balla gay mhm. waaw te nag bi ma doon xool yëpp concentré nekk ci làmb ji mosu maa gis benn yoon fu mu fu mu baaxee ci côté tafaatin Tine mhm. fu ma seete ci côté Balla Gaye lay baaxee ñu nit ñuy def loo xamante nii ba lii ñu gis nii mu baaxa ci Balla Gaye dara du ko tourné te dara du ko changé. dëgg la waaw ci loolu la nekkoon di liggéey. macha allah ci loolu nga nekkoon di ci liggéey boo yàlla suñu boroom may la ndam. Mm-hmm. mais Koriander dafa am laaj boo xam ne nag gars yi ñoo ma ko yónnee. Mm-hmm. il faut mu laaj la ko euh, ñu bari dañu naan Balla Gaye taalube la Balla Gaye taalube la dafa bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. te Moustapha ku ne xam na ne taawu Serigne Touba lañ ko tuddee. kon dèjà ñoom ñaar ñëpp ay murit lañu. waaw ñu bari nag dañuy laaj dañuy euh, jaawale maanaam tafaatin xëj na dafa bokk ci feneen wala feneen mais tafa murit saadix la taawu sëriñ tuubaa lañ ko tuddee. tafaatin. Mm-hmm. taalu bi la. dëgg la Baye Fall la man am na benn vidéo boo xam ne dama ko yor sama téléphone muy Sam Fall. Mm-hmm. ah tafaatin boo ko xoolee istil boo ko xoolee ni muy soloo ak njalambaan bi muy def ci baat bi macha ko xool dee xam ni kii Baay Faal la dëgg la da di ñaari mbokk taalibe yu daje woon ñu daje woon tey ji yaakaar naa ne mhm. tafaatin bu fekkoon moo jiitu ci man Balla Gaye wala tafaatin laa njëkk a xamal Balla Gaye dëgg la kon yaakaar naa kon tafaatin laay jàppale dëgg la waaye yàlla dafa dogal. Mhm. ànd yàllaa koy def. dëgg la man bu làmb ji boo ci génnee Balla Gaye tafaatin moo ci sama mbër. barke maam Cheikh Rafal. dëgg la ci mbër yu mag yi boo ci mhm. génnee Balla Gaye yow waxoon naa la ko si émission. waaw waxoon naa ko weesu. tafaatin kenn gënu koo bëgg. dëgg la barke Cheikh ib Fall. du kenn ku ma ko gën a bëgg. waaye yàlla mooy boole ay nit yàlla moo dogal. Mm. boole ma ak Balla Gaye. Mm. Balla Gaye bëreek booy ñaar booy ñaar daan ko ma génn def benn interview ci moom mu seetaan interview bi ñëw sama kër. Mm. daanaka booy ñaa da daan mu nekk ci tolof tolof ñaari fan la ci teg ñëw sama kër. ñëw sa kër mu ñëw booba léegi. Mm-hmm. muy ñëw may dem ñuy dem lante di ñëw lante. macha allah ba yàlla dogal ñuy nekk ci moom di nekk ci moom génn publiquement Sénégal yëpp teg ci seen bët ñu leen mm-hmm. Balla Gaye ay jafe-jafeem jeex na fu mu nekkoon dina fa dellu. Mm-hmm. ñun nag ñoo xes ba génnee sunu làmmeñ ne Balla Gaye ay jafe FM jeex na te buñ koy wax kenn saxal la ñu lem mm-hmm. kenn saxal la kii te vidéo yëpp Sénégal dañ koo dagg téye ko mm-hmm. te man bugguma ëllëg ñu jël samay vidéo di ko tas dinaa la sëñ bi moo fi waxoon lii mm-hmm. moo tax man duma ma waxantu du ma waxete ci yaaman du ma gis ñu teg ma micro rek may wax ci ci ci ci lu ma xam waaw waaw ndax ñu bari dañ leen di bett ak micro rek ñu wax loo xam xooluñu ko xamuñu ci dara man nag balaa maa wax day fekk loo xam dama ciy xam dara ndax man de wax dëgg fa yàlla tagguma sama bopp dëgg la waaye damaa mën a seet macha allah damaa mën a gis samay maam yëpp ay giskat lañ Daglo sama Imam ñu sama yaay. Mhm. ñu jur sama papa. Mhm. sama papa sama yaay. ñepp ay kat lañ ay kat lañ. dëgg la damaa doon ci côté mam don ci côté bay don ci côté yaay. dëgg la kon nak man suma mënul gis. Mhm. ñu laaj mako Daglo. dëgg la da li jamono ji ni gaay di doxé man dama ko wol, man dama di bay faal. man talibé bi mo upp ci man. ak mbubb bu woyof bi. sha allah ndax dama déselul sama aduna. Daglo. la barke Cheikh Ibra. sha allah ndax man ab bay faal la ab bay faal nak da ngay dangoo non da ngay nango doon suuf. suuf nag luñ jot di leen la xëpp luñ jot di leen la tuur mhm. kuy dox sa kaw lay dox mhm. waaye loolu dañ koy nangu ndax ñun ñoo ñoo opté doon Baay Faal macha allah waaye fii Sénégal Sénégal réew mi ñu nekk mhm. ku ma ci ëpp xam-xam gisuma ko dëgg ma ci dàq gis gisuma ko ku ma ci dàq seet gisuma ko barke Cheikh Rafal dëgg la yaaram mu ngi noonu Koriandé mooy wax noonu moom lañu seet si tey di waxtaan ak moom deuxième laaj bi mooy est-ce que prochain combat Tapha Koriandé ni mu sone ci bala Gaye de ba yàlla suñu borom may ko ndam. Mm. Tapha bu amee beneen combat moo xam muy combat royal wala ki daanu wala ki daan ci combat diggante Modou Lo ak Siteu est-ce que Koriandé pare na pour takkaat laxasaayam jàppale Tapha pour mu am ndam ci combat boobu. loolu loolu pare naa ko. Mm-hmm. man damaa doon nit koo xam boo seetloo du ma faral di wax sax ci làmb. Mm-hmm. mos mos ngeen maa gis làmb am fi ma ne diw day daan. te xaw ma mbër mi. Mm-hmm. ndax du ma tooñ moo tax. Mhm. du ma bëgg a wax tafaatin tey jii bi muy bëreeg Eumeu Sène kenn déggul ma wax ci. dëgg la. bi muy bëreeg booy Niang kenn déggul ma génn wax di way daan. dëgg la combat yi yi fi am yëpp kenn déggul ma ne Modou day daan wala diw dañ koy daan. Mhm. kenn déggul ma wax ci. dëgg la li tax ma wax ci làmb Balla gay nag. Mhm. loolu dama koo seq ak Balla Gaye. la waay. tafaatin su amoon kombaa dugal ma ci kombaa bi woo ma. ma fës ci. Mhm. te jàppale ko. Mhm. te barke Cheikh Ibra bu buñ bu buñ taxawee ci ginnaawam. Mhm. yaakaar naa ne lu nu bëgg lu mu bëgg dina ko am. dëgg la waaw ñun nag du nu bàkku du nu tagg suñu bopp mais tafaatin. suñu mbokk la ñun ay séeréer lan. dëgg la ay si man bawal bawal la da di bu may ñëw fii Mbour booba xale laa mais ñun caacaw caxar moo suñu cosaan. caxar waaw caacaw caxar. foofu foo taxaw boo ne coriandre maa mën dëmm xam nan ko. dëgg la. waaw sam papa la cosaanoo fa la màggee fa la defee lépp ba ñëw fii mbuur am fi kër ñun ñu màgge fi yaroo fi waaw mais ñun ca bawal bawal lañ dëgg la tey suuru combat ba boo doon ngem tafaatin ñu bari ñu ngi naan andi na galaaj mais andiwul ngem est-ce que ngemu tafaatin suur boobu mënoon na feeñ ci kanamu bala Gaye waaw man nag li may yokk tafaatin dafa neex a jàpp mhm. mbër bu mag mhm. waro yomba japp waro yomba jàpp. waaw. Mhm. tin da yomba fas. sha allah dafa melni ni. Mhm. xamanteni manam amul mbok wala dara. deug la. barke Cheikh Ibra Fall. Mhm. tin defewul fas. comme da ngay gis mbeur mo xamanteni pour nga fas ko du yomb. man man man mosnaay fas ben mbeur bi ma demee ci ci ci ci ki bi. ci guy bi ma doon daaj mhm. bi ma bi ma daajee mhm. juróom noonu tuuti sama bëñ bi fii yàqu pont bi sama sama sama fii la dal allahu akbar waaw kooku mënuma koo ba am ko fenn hmm? waaw boobu combat waaw am na loo xam sax jarul wax ci télé daal am na loo wax loolu <laughs> passé daal mu doxaat ci boobu daal waaw waaye kooku ah. mujj naa ko am mhm. waaye balaa ma ko am damaa sonn waaw ah, mais mais yéen itam xaw mucc ci yéen dafa yomb. ndax boo lambee mu dëgër nga lam fee. kooku mujj naa ko am waaw. <laughs> te balaa ma koo am damaa sonn. waaw loolu la nag. waaw waaye comme tafaatin. waaw fi mu toll. Mm-hmm. ak dayo bi mu toll. Mm-hmm. dëkk ci biir séeréer si. Mm-hmm. te fi mu dëkk fa la xam-xam féete baax. tafaatin kenn waru ko moo war mën a fas. dëgg la làmb ji nag du ma wax ne fas lañ ko daane ndax mm. làmb ji ay ndogalu yàlla la rek. waaw ndax tafaatin boo seetloo bokk na ci làmb ji. Mm-hmm. bi mu ñëwee tuus na. Mm-hmm. sawar na. Mm-hmm. yëngu na. bëri na. neexal na làmb ji. maanaam bu mu duggesee ci làmb ji sax moo gën a firi Balla Gaye. booy xool ci wàllu confiance da ngay naan tafaatin moo ëpp confiance. waaye bi mu demee ba ci digg géew bi. bu arbitre soufflé mook Balla gay mo ñëk door mais dañoo dem ba ci biir. waaw ba bañ bayante ba waat waaw di yaram yi commencé bañ. yaram yi nak lu mu commencé bañ du ma fas la mëna naa donc mu tafatine poids lourd la. waaw poids lourd amna noy nooy chargé sa loxoy mën nay toqi wala dara mo tax du ma fas la. deug la waaw waye dal mais mais coriandre coriandre <laughs> waaw wax ñu rek wax ñu limu doon rek. non non du ma ne du ma du ma fas la. <laughs> Ah. ndax làmb dafa doy waar da boo seetloo Tapha Tine plaqué na Balla Gaye waaw plaqué na Balla Gaye daw ak Balla Gaye mais boobu loo tànk loxo bi jàppul de. waaw mais plaqué boobu noonu. waaw ku ñu fas loxo dëgg doo ko man <laughs> te loolu noonu Balla Gaye bu amul entraînement day daanu. macha allah entraîné na. waaw loolu ba Tapha Tine bëri na foofu lu baax Balla Gaye bu amul woon entraînement day daanu. Mm-hmm. beneen bi moo njëkk a songu Balla bi mu koy bàyyi duggoon na ñaari épercure. fëpp fëpp mm-hmm. Mm-hmm. yooyu noonu. ku ñu sa loxo doo mun a dóore noonu. waaw ah, dari Balla Gaye li mu xeex ak Tapha mhm. da koo mën boo seetloo xeexkat yëpp ku ci xeex ak Balla Gaye da ngay am problème macha allah waaw ah, xeexkat yi ngay gis ne yëpp ku ci taxaw xeex ak Balla da ngay am problème loolu mhm. yàllaa ko ko may xeexkat yi nekk ci làmb ji yëpp ku ci xeex mhm. ak moom dalay daan ay Gris doo gis nga ay Modou Lo dëgg la waaw ñoom ñëpp ku ci nekk daan na la ñaari yoon loolu nag yàllaa ko may nga xamante ni kenn mosta daanu wala koo xam gëj naa daanu boo bëreeg Balla Gaye pour Balla Gaye daan la loolu day yomb loolu yàllaa ko may gis nga Yékini gis nga ay ay Modou mhm. ñoom ñëpp Balla Gaye leen njëkk a laal suuf. dëgg la Tapha ñaata at la toog daanuwul. dix ans poids lourd yëpp Modou sax li tax mu fent Tapha Tine ñemewu ko. dëgg la Balla gay ñëw jël ko daan ko mhm. waaw te dafaatin nag wax dëgg fa yàlla mhm. mbër dëgg la góor yàlla dëgg moo koy mag moo ko nangoo moo koy dékku macha allah barke maam Cheikh mu ngi noonu ñu bari naan Balla Gaye de dafa daan tafaatin moo tax ñu naan ñëw na mais cent pour cent Balla Gaye ba ñu xamoon bu doon bëre ak Modou Lo doon bëre ak Eumeu Sène bu njëkk ba doon bëre ak Yékini ak ñoom Tyson mhm. cent pour cent Balla Gaye boobu nekku fi cent pour cent Balla Gaye boobu munu fa munu fee nekk. munu fee nekk. ndax tey jii nit ki da ngay magal. dëgg la. fii tey jii kenn at du wàññeeku at day yokku. waaw. nit ki da boo xeetloo bi ngay judd xale nga woon. Mm. jékki-jékki màgg. waaw jékki-jékki ami sikkim. waaw jékki-jékki ami jabar jékki-jékki di ami doom. waaw sa doole day wàññiku. dëgg la sa at day wàññiku. Mm-hmm. sa dee da lay gën a jege. wallaay dëgg la. kon nag. Mm-hmm. nit mënul di job mag. di gën a dellu xel di gën a dellu xel fii ku ci nekk ni nga meloon avant. Mm-hmm. ak booy commencé jëb mag. ni nga meloon. du bokk dëgg la. <laughs> waaw 100 pour cent Balla Gaye bu njëkk ba moom. waaw mënut nekkaat. mais ñu bari naan Balla Gaye bu respecté entraînement am ah. neexul daan. Mhm. ndax ñi fi nekk gënuñ ko ëpp ñu ko fit te daquñu ko bëre. Mhm. te pour nga daan bala Gaye dëgg dëgg dëgg foog nga ñeme ko comme boo ñaa ni mu ko ñemee woon. Mhm. waaw. ngooy lii ma lay wax ni bindal téye. Balla Gaye bi mu bi mu bi mu solee dàllam ñëw ba toog fii. Mhm. maa ngi moom ñu toog. Mhm. man daa am lu ma ko wax. Mhm. jël samay engagement ci moom ñu toog. bi Balla demee damaa dugg ci si sama village yi. waaw fu ma ko war a samp yëpp ma samp ko fa. li ma ko war a defal yëpp ma defal ko ko. ba pare liggéeyal ko ay ndomba yu ay bagage doy waar. macha allah daal sama oto dem këram def fa ay fan. Hmm. jox ko loolu mu takk. dëgg la li mu fay war a sangoo yëpp ma fa ko defaree lee mu sangoo fa. macha allah lu ma fay jógee ma nee ko Balla. Hmm. say jafe-jafe jeex na. Hmm. te man nag yàlla du ma xamante ku nar a dellu gannaaw. dëgg la man damaa am ñaanu kilifa man ah. jabootu seex Ibra yi. macha allah jabootu Serigne Touba yi. dan maa ñaanal. macha allah sama kër gii. Serigne Moustapha Fall mu Serigne Abdou Sakkour nee na. Kurna ta bax la du fi ñew macha bu mu koy wax ma ki ñoo tok deug la. mu ne ma seigne Cheikh Jëmb. sa kër hmm. gi kep ku fi tek tankam rek. lu mu ñaan. Hmm. Cheikh Ibra Fall dina ko ko defal. sha allah. motax man gëm naa ne. Hmm. du ma xam ku nara delu gannaaw. deug la Cheikh Ibra Fall. sha allah ndax man nak nit man na ma waxal lu ne. waye ku baax laa. ku bëri yërmande laa. ku woyof ma sha allah te lepp lu ma yor dama koy bokk ak jaamu yalla yi. deug la. xol nag nit moo mën a siise boppam mhm. waaye man nit ku baax laa dëgg la te xol mooy ñaan mhm. te man xam naa ne Sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafa rek laay liggéeyal macha allah Sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibra rek laay liggéeyal dëgg la moo tax man duma am gàcce mhm. duma am defet làmba allah làmb ji bi mu taxawee ah, bañ bañ bañ ne làmb ji des na ay fan ajjuma bi doom ajjuma samedi dimanche gaa yi jàpp na damay toog concentré ci làmb ji Sëñ Muntaxaa daa woote ma takk sama ndigg dem ci suñu ne Sam bi dëgg la bi ma demee ci journée Samfal bi dama Samfal ba sama yaram tang, mhm. ma janok Cheikh Rafal. waaw ñaanuma ay Balla gay am ndam de. Cheikh Rafal mhm. la ñaan ne ko man sap ndongo bi bu mhm. yalla na buma am gatché inshallah ndax bu Balla gay daanu won sama gatché la. ma jaayanteeg Cheikh Rafal. inshallah ne ko ñaanuma la ci lamb waye sama jëm sa sam ndongo bi ma lay ñaan man Serigne Cheikh jëmb. bëgg la gëm la yaakar la. yàlla na may yëkëti waye xajuma ci gatché te yalla na buma am gatché te doo mos a am gàcci sax doo mos a am gàcci sax wax dëgg fa yàlla képp kenn du gëm maam Cheikh Rafal di am gàcci mhm. su su itam doon xeetu séeréer mhm. si doon ab Cheikh itam wax dëgg fa yàlla gars yi dañ laa xamagul mhm. mais am na lu duggoon sa diggante ak benn tiktoker loolu sax xam naa dañuy bàyyi mu jàll ndax gën nga ci wax nga ci baale nga lépp soti na incha allahu rabbi yow moom xam naa ku la xamul rek voilà mais ñun xam nañu to saxol dafa rafet comme ni nga waxee léegi rek maam Cheikh Rafal rek nga yaakaar mais dañuy ñëw nag ci xam-xam mhm. ndax ku wax itam koriande wax sangat ku wax itam koriande wax wàllum seet nit ki pour nga dugg ci moom nekk mënoo ci dugg te jaaroo ci bunt bi il faut mhm. nga seet ba pare nan ngay seete waaw ah, man ci ndox laay seete ci ndox te lii dina dugg YouTube mosuma seetal nit te gisuma ko dëgg la mosuma seetal nit mu ne ma gisoo ma mhm. waaw man junni laa seetee cinq mille cinq mille francs waaw waaw waaye jamono ji ku munta seet doo liggéey. déedéet. doo ñaanal kenn. Ah, waaw waaw lool de am na. man nag damaa mën a gis. Mm-hmm. te maanaam. billaahi wallaahi barkeeb Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. li ma li ma yëkkati ci ay nit. Mm-hmm. bañ yokk jamono jii mënu ma laax ni mu toll. wallaay dëgg la. ñi ma ñaanal ñu tukki. mënu ma laax ni mu toll. wallaay dëgg la nekk fii Sénégal aaju ci man. ñu xam ma seen i yokk. mënu ma laax ni mu toll. dëgg la maanaam. man ñi may jëflanteel. Mhm. ñoo mën a seede ci man. waaw mais koo xam mosuma laa ñaanal mosuma laa jëf mosuma jëflanteeg yow. mënoo mhm. wax ci man lu ma métti. Mhm. waaye man ñi nga xamante ne yàlla dogal na jëflante naa ak ñoom. ñu ñu xam nañ kan mooy Serigne Cheikh Jëmb. dëgg la macha allah. am na ñoo xam ñaan laa seqoon ak ñoom sëñ bi dañ maa seexal te ñaan rek laa seqoon ak ñoom ma leen di ñaanal ñu xam ma ci internet. ma leen di ñaanal. bu ñu amee soxla wax ma ma ñaanal leen. ñu dem bat justice ci man ba bi ma sëñ bi seexalee mhm. ñoo ñëpp dañoo ñëw jébbalu ci man macha allah man bi ñu ma seexalee ñi ma xam ne ñaan laa seqaloon mhm. ñoo ñooy doon samay ndongo tey ñoo ñoo ñëw jébbalu ci man dëgg la ñaan rek laa seqoon ak ñoom ñu seexal ma ñu ñëw jébbalu ci man macha allah tey ji yaakaar naa ne ñaan boobu nu seqoon bu doon dañ may jox seen xaalis ma koy lekk wala di mm. leen nax wala ñu mm. gis mm-hmm. kon duñ ma duñ ma gëm si ñaan bi ba waral ñu seexal ma ñu ne dañoo jébbalu ci man doon samay ndongo léegi lu wér nga wax jë <laughs> waaw lu wér nga wax barke maam Cheikh jaajëf yaaram kon seet bi am na solo mais itam wax nga ko léegi ñi nga ñaanal ñu tukki mm-hmm. bari na mais ñu tukki itam am jafe-jafe ñibbisi ngir amuñu kayit itam bari na de walu kayit mhm. sa borom daf ma ci may sha allah waaw ndax ñaa ñima ci ciy jëflanteel it bari na mhm. waaw képp ku ma ci jëflanteel ba ñaanal la mhm. ba xam say saraxu kayit yoy mala koy digal nga koy def hmm malay ñaanal ngay def say sarax bu soobe yalla da nga am kayit ci lu yomb da nga am kayit ci lu yomb ndax nit ki mënoo Mhm. te duggoo ci raw xaanam waaw dëgg la de ba xam saraxam mhm. ba xam fi ko war a mën a jaar dëgg la moo tax nit en général bu ma woowee di ma wax soxlaam mhm. sëñ bi lii laa bëgg dama lay naan dama lay seetal ba pare boo mënti doon waaw su ma la seetalee pare man des fois damay seetal nit ne ko yow mënuma laa ñaanal wala nit seetloo ma woo ma rek ma ne ko mun ma nit des fois daf may woo téléphone rek ma mer kooku waruñoo jëflantel kii xam na li ma koy wax ñooy toog dëgg la des fois nit woo ma rek ma tàkk mënuma kii ak yow mënuma laa defal ndax kooku dafa fekk loo xam ne waruma laa waruma laa laal. dëgg la ndax man nitu nitu tuur laa. borom mhm. àndandoo laa. ku ma warta jëflanteel. Mhm. waruma jëflanteek yow. dëgg la. waaye ku ma xes ba jàpp. Mhm. jàpp naa la. Mm. yow mii dama defal interview. waaw man day ñu bëri dañ ma doon wax ne kii kooku ci waa tafaati nii. day war laa defalee interview. day saa vidéo yi muy ñëw di la def yëpp. waaw da laa bëgg a yóbbu vaar. dëggal ne leen su fekkee wax naa fi lu ma war a mën a yóbbu vaar. est-ce que dama yóbbu la ndax képp man maa wax. Uh-huh. li ma wax bu amul. Mm-hmm. ku mu neex yóbbu ma vaar. dégg la waaye man kooku dama ko jàpp. Mm-hmm. ndax li ma xam ci moom laa xam ci moom. dëgg la muy taalube. Mm-hmm. muy woyof. yaa may dégg. loolu laa xam ci moom moo tax tey jii tafaatin la faral man Balla Gaye laay ñaanal loolu. intéressé wu ma. dëgg la tey jii bu dëkkoon kër Tafatin sax. Mhm. bëgg a def ak man émission. Mhm. dama ko koy may sama mbokk séeréer la. Mhm. te budul dara. maa moom dañoo xamante lu yàgg. avant interview bi ñuy déggante. muy waaj. boobu ay at la. dëgg la di waaj a ñëw fii ñuy déggante boobu. lii xewagul boobu loolu ay at la. waaw loolu de am na ah, moom man ci loolu laa la jàppee ma paal yi. dëgg la yaar barke maam Cheikh Rafal te man ma jàpp di bàyyi. Mhm. waaw barke Cheikh Ibra. jërëjëf man kontaan naa bu baax a baax wax dëgg fa yàlla ci. cër bi nga ma may rek boole ma ci sa bopp. Mhm. lee lamb la woon rek sport la. Mhm. mais bu dul loolu ñun du ñu wax sax ci lamb. suñu liggéey la ñu tal quoi xam nga. bu dul loolu duñ ci sax wax wax dëgg fa yàlla. mais ñu ñëw itam rek euh, ci xam naa dañ laa fekk ci yoon xat na. ci koo xamante ni dafa nekk ci tolof tolof tolof tolof nak barina, na mais bi ñu euh, bi ñuy yónni saa su laaj loo dafa ci tolof tolof ci wàllu yoon ndax am nga ci pexe koo xam dañ koo ci yoon wala ku nekk ci kaso pour ñu ñaanal ko mu génn. ah man de wax dëgg fa yàlla. Mhm. ñi nga xamante ne boole na ma mhm. ku ci am problème ci ay police. Mhm. wala dara. sa xel ci man lay njëkk a njëkk a njëkk la. waaw mhm. yàlla dogal na damay samp nit mhm. nit kooku bu xëyee mhm. bu waree am ay jafe-jafe sax dañ ma koy woon man damaa samp ay punkal yu bari yor leen des fois ma woo xëy woo nit ne ko tey bul dawal sa oto hmm? tey bul taal oto tey bul génn sa kër allahu akbar tey boo xëyee na nga saraxe tey na nga moytu lii te ku ma ci wax moytu lii da koy ku ma wax tey bul dawal sa oto du ko dawal ku ma wax tey bul génn sa kër du génn sa kër dëgg ndax képp ku ma ci wax tey jii bul def lii boo ko boo xëyee def ko gis ko ñooñu dama leen a samp seeni mbir ñu ma koy won waaw dafa am kilifa yu bëri. Mm-hmm. tey jii du ñu dugg lu ma yegul du mm-hmm. ñu duñu ñu du ñu jóge Europe ñëw Sénégal te waxuma leen yoon wi baax na. dëgg la bu ñu ñëwee Sénégal du ñu dellu Europe te waxuma leen yoon wi baax na. Mm-hmm. te man rek la ñuy déglu ndax dama leen a samp yoral leen seen i mbir. dëgg la ñooñu ma samp nag yoral leen seeni mbir. wallaahi ñu nga yokk ñu ngi yokk. dëgg la nee nañ ko am kuddu. doo lakk doo lakk. la. bu loolu weesoo tamit. maa ngi ñaanal sama yaay bu baax. macha allah. waaw man. Mhm. xamal tax ma gaa yi mun nooyam. Mhm. man dama am ngërëmul ñaari wajur man sama wajur bu góor. Mhm. daf maa gërëm. xam-xam bi ma yor li tax ma xam ci lu bari sama wajur bu góor. ndax la doon nek bo ñewé kër ga. dem ba ñu magal wara dem ci Allah ba du uti ay garab. góor beeg xas yeeg sulli reen yeeg yoy di mitti. dem ba amu won métier. nangotuma liggéey di top deug la. bu demee ma sullil ko mooy wax ne ma garab yi nii lañ koy daggee xas bi nii lañ koy jëndee mhm. ma ko koy defaral lépp ngir de mhm. di ko ko yenul di ko andil mhm. ndikee loolu noonu ma ko doon defal damaa dem ba amaale ci xam-xam dëgg la ci garab mu gërëm ma gërëm ma doog fiy jóge kon waa sama yaay sama bu góor nag sama wayjur bu jigéen ma desee ak moom nii chaque jour ci lu ko neex laay dox nii du ma lekk dara bàyyi ko dëgg chaque jour su may jugee fii sama kër balaa maa def dara ci moom laay jaar gis ko dëgg la fu mu toll daf may ñaanal macha allah yàlla dogal muy waram xam-xam mm-hmm. làmb ji daf maa woo ne ma Cheikh Jëmb mu ne ko waaw mu ne ma bul tidd añal ba jour nelawal macha allah démb su guddi won nañ ma jël bi mm-hmm. jël bu leer lay doon dëgg la Balla Gaye day daan. Mm-hmm. lii man maa la ko wax. macha allah waaw. Mm-hmm. man nag du may wax ci làmb te du may kii waaye làmb jii nag moom. Mm-hmm. bi ma gisee nga sonn ci rek ci laa ci dugg. dëgg la waaye bu la neexee tëddal nelaw. xamal ne tafaati Balla Gaye day daan tafaati. dëgg la <laughs> macha allah mu doon boroom xam-xam. waaw maa ko tere ay internet. dëgg la ay YouTube ak ay mm. TikTok ak. Mm-hmm. yooyu maa ko tere. macha allah waaw la TikTok moom xàmmewuñ mm-hmm. kilifa. nit day génn. Mm-hmm. ñu dagg saaga. waaw loolu am beneen bi tamit nag gaa yi bàyyi bu nit waxee ñu ne sëriñu TikTok la jamono ji képp koo fi gis sëriñu TikTok la. waaw man sama jamonoy papa. Mhm. TikTok amul. amul YouTube amul. Mhm. suñ jamonoy maam. Mhm. TikTok amul. YouTube amul. dëgg la de bu te bëggoo te jamono jo bi internet amoon ñoom dañ ci feeñ. waaw jamono jooju ñoom la lañ doon def dem ci rajo yi. ñu leen defal ay publicité. waaw loolu de am na moom. rajo boobu jamono jooju rajo moo nekkoon. internet ku ci bëgg say mbir jaar. dangay dem ci rajo yi. da dem ci rajo yi. ñu defal la publicité publicité. jamono ji da ngaa déggati jamonoy rajo publicité déedéet jamonoy TikTok lañ toll jamonoy YouTube jamonoy internet internet waaw mais suñ jamonoy maam yi internet rajo moo amoon dañ ci doon dem ñoom ñu leen defal publicité lu nga wax ñun jamonoy internet YouTube moom la ñu fekkee dañuy feeñ ci YouTube bi dañuy feeñ ci TikTok bi wallaahi jamono ji boo yoree xam-xam toog sa kër nga ne duma ma feeñ YouTube du ma feeñ TikTok loolu moog zéro yem wallaahi dëgg la man ñaata nit ñoo ma xamee ci TikTok ñëw nga faj seen aajo ñëw ma faj aajo. wallaay bari ñaata nit ñoo ma xama ci YouTube ñëw ma faj seen aajo. dëgg la de kon ñun dañuy feeñ ci YouTube. Mhm. dañuy feeñ ci TikTok. waaw na gaa yi bàyyi TikTok. ah jamono jii nii. képp ku bëgg nit ñi xam la. di nga feeñ ci internet. képp ku yor xam-xam bu wóor te ñemee li ngay def. Mhm. di nga feeñ ci internet. dëgg la de. ndax sunu jamonoy maam yi radio amon. waa rajo amoon. te ñoom dañ doon dem di publicité ñu leen di publicité ci radio. yi. ci rajo yi dëgg la. dëgg nag dafa neexul. waaw loolu mooy dëgg sax. jamono jii nii bu mm. fekkee ku génn rek nga ne sëriñu TikTok lañ. Mm. jamono jii sunu sang yeeg ñëpp la ñuy jëli dugal. TikTok ñëpp kañ ñëpp kañ. ñu bëri jamono jii gis yëpp TikTok lañ xam. ñëpp wallaay du caaxaan. waaw ah, TikTok moo xew. wallaay dëgg dugg ci. waaw <laughs> day gën a taw fiixe rek <laughs> day gën a taw fiixe fii daal mooy këru xiiwal bi waaw këru xiiwal bi daal mu ngi nii mm. sama butéel ba nag jawrin waaw la ca des bareetul de ndeysaan la ca des bareetul de bayre ba waaw ndeysaan ah, waaw la ca des daal moom waaw xam naa ne ñam naa ko neex na daal mais la ca des daal xam naa fii ak ay weer ci kanam daal xam naa daal lay mu jeex <laughs> incha allahu rabbi kon ñu bàyyi la rek su fekkente ne am na leen loo bëggoon yokkaat ci émission bi rek loo xam ne jotuñ la ko laaj ci wàllum liggéey liggéey bi ak wàllu leeral boo bëggoon leeralaat askan wi rek yaaram. wallaay wallaay. Mm-hmm. waaw di di di sant rek. Mm-hmm. waaw di sant rek tey wax mm-hmm. waa Sénégal. fii daal jàmbaar amu fi ku ñu dimbalee fi am. dëgg la man du tagg sama bopp. du ma bàkku. du ma ne man man man. macha allah ab jaam laa. ab taalube laa. taalibe maam Cheikh Ibra Fall laa dëgg la yaa doon liggéey katam mhm. fas yéene koy liggéeyal mhm. ba keroog may dee dëgg la ndax Cheikh Ibra rek laa bëgg mhm. Cheikh Ibra rek laa gëm macha allah Cheikh Ibra rek laa wóolu dëgg la rek laa yaakaar macha allah Fall jàmbaar nag amu fi li may wax rek ku ñu dimbalee fi am te ñun maam Cheikh Ibra moo nu dimbali du nu bàkku du nu yëg succès du ñu yëg suñu bopp dëgg la du ñu ne ñu na macha allah lii xew nii yëpp ñun duñ ci dara dëgg la barke Cheikh Ibra Fall. dëgg la Fall la xew nii yëpp rek ñun duñ ci dara. dëgg la mbiru saa boroom la. Mhm. yàllaa ko dogal. Mhm. dañuy jël lépp delloowaat yàlla. Mhm. te takkaat suñuy laxasaay. nekk ci li ñu war a nekk. xam fu ñu war a ni ñu war a gën a téye sëriñ bi ñu gën ciy nekk. dëgg la waaw nekk ci di sellal. bëgg suñu bopp. te kenn bëgguñu mu gis ñu fu nuy xeebe. dëgg la ñun daal ci loolu lañ nekk. ci loolu rek ngeen waaye bu weesoo loolu daal. ñun daal ay ndongo lañ ay taalu bi lañ ñu ngi santaat nag maam Cheikh Ibra Fall bu baax baax a baax te nekk nag fi toll nii di mm. waajal màggalu Serigne Touba màggalu Touba bi ñëw na de amuñu lu dul màggal déedéet ñun Serigne tubaa la ñu bëgg mm-hmm. Serigne Touba la ñu gëm Serigne tubaa la ñu wóolu Serigne tubaa la ñu yàq rek amuñu lu dul moom waaw waaw kon ñu ngi waajal màggal bi bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw di nuyu nag. Mhm. Cheikh Seydina Aliou ñu ngi bu baax. góor yàlla waaw góor yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax. jërëjëf yàgg fi lool te wër. amiin yaa rabbi. waaw wax dëgg fi yàlla ndax nee nañ. Mhm. ku ñeme dañ laa dee. dëgg la. waaw kon kooku ñu ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. li mm-hmm. sant kullu seexam. Mm-hmm. du nuyu képp ko aju ci moom. Mm-hmm. waaw barke maam Seera Fall. dëgg la ñu ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp man nag dama di bàyyi faalam. macha allah waaw man ci biir kër ga. dama di bàyyi faalam. dëgg la ndax moom Seydina Aliou. xam ne. ne Cheikh Ibra rek laa bëgg. xam na ne Cheikh Ibra rek laay noyyee. te xam na ne Cheikh Ibra kese laa gëm. dëgg la moom naa Aliou dafa xam loolu. macha allah ba tax na lépp luy bàyyi faal di doxee. dafa ma may loolu. macha allah na doxinub Cheikh Ibra Fall bi ma la fekk. Mm-hmm. du la su ma la ko yokkulul duma la ci mm-hmm. wàññil dara. la lépp lu Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. digal ay ndongoom. moom bana ma ci. te daf ma ci dooleel ma koy def. dëgg la Fall. <coughs> waaw ci li ma nekkoon ci Baye Fall xañu ma ci dara. dëgg ndax moom Cheikh Ibra la bëgg. Cheikh Ibra la gëm. Cheikh Ibra la wóolu Cheikh Ibra la yaakaar. dëgg la fii Serigne tubaak ak Cheikh Ibra Fall la fi am. macha allah. moom xam bi mu xam ne Serigne Cheikh Ibra ak Serigne tubaab fi fi am. moo fi nekk moo tax chaque jour. Mhm. wax dëgg fa yàlla ci li ma nekk. daf ma mhm. ciy soññ daf ma ciy ñaax. macha allah man nag sama lépp. mooy mhm. Cheikh Ibra. dëgg ndax man fépp fu ma koro góor fu ma góor. Cheikh Ibra laa fay wër. macha allah fu ma góor gisuma fa Cheikh Ibra dama fay jógee wëri Cheikh Ibra. dëgg la faal man fépp fu ma nekk. Cheikh Ibra laa fay seet. dëgg la su ma fa gisee Cheikh Ibra dama fay nuuru. waaw waaw su ma ko fa gisul dama fay jugee. dem sa yoon wëri Cheikh Ibra. wallaay dëgg la ndax man Cheikh Ibra laa bëgg. dëgg la Fall te si keppaaru Seydina Aliou nag. Mm. dama faa gis Cheikh tax ma nuuru fa. dëgg fu ñu ma gis ma toog rek. Mm-hmm. xamal na Cheikh Ibra fa ne. dëgg la Fall Cheikh Ibra laay wër. macha allah daa <laughs> ngeen jëf. jërëjëf <laughs> kontaan nañu baax a baax. Koriandé Cheikh bi kontaan nañu. di ziar bu baax euh, Serigne boobu sa mm-hmm. ah. Serigne. ñu ngi koy ziar bu baax a baax xam naa ziar bu weesu bëggoon naa ñëw mais mais ak ni mu demee woon moo tax mais incha mhm. allahu rabbi mhm. ñu ngi koy seedal kane mhm. dinañu mos a toog ci kanamam te yow mi yaa ñu fay yóbbu incha allahu rabbi kon ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm Baye Fall bi ñu toogala ah. ñu ngi lay gërëm yow bu baax a baax di amaat bégte ak kontaante ci yow wax dëgg fa yàlla di seedal àdduna ne sama nit nga barke borom Touba heure boo ma soxlaa bu ma ñëwul rek dama nekk ci sama liggéey boo yoree liggéeyu bari lo xamne ne doo ko mën mhm. mais suma ma yu er bo ma soxla dina tew mhm, mhm, barke borom Touba contane kontaan nañ bu baax ah, yaram mom mi nak mom dañoo yag ndeysaan ndeysaan waaw moom Baye Fall bi ah da naka bar mi nek ay xalé ñoo fondo ndeysaan dañu yag de macha allah bu ñuy ànd ay fukki at lañu am xamuñu dara di fond ah, ndeysaan doon and di beure man jaar na ci beure ñoo doon ànd mu di beure ndo waaw di and di dem geej deug la di and di def fi fu xale macha allah di and di fond waaw tay ji ba yalla def ma ni hmm fu ma jëm moom man moom laay àndal. ndeysaan nangul ma ko lool nag. macha allah barke maam Cheikh Rafal. loolooy Thierno waaw tey jii dafa ma ne dafa toog fan yii dafa toog ne ma sëñ bi bàyyil TikTok. macha allah bàyyil wax ci làmb la wax <laughs> ndax sëñ bi jamono jee waa ji doon génn di wax ci ma. ñu ñëpp danoo mer bay fet. ndeysaan ma ne leen nag. waaw leen mu sedd loolu dëgg la dëgg la ñu ne ma bu lii jàllee bul waxate ci làmb ndax yow lu mett ndax la wax dara bu ñu jege woon tey mm. dootu ko wax mm-hmm. wa motax bayal wax ci lamb dañ la ñaan lool mané la nak dina bàyyi wax ci lamb deug la deug la ndax ñom ñi wax deug fa yalla dañ mm. ay du ma du kii kase mm. dañoo doon ay Baay Faal yu bari ma sha allah wër ma may and ak ñom fu mm. ma jëm ñu top ma deug la te xamna fiñ ma tek hmm barke Cheikh Ibra Fall lu wër nga wax gisee nit di wax ci man da leen di metti deug la waaw baaram mi dafa ñak ki ñaan ma sha allah góor yalla la Baay Faal baax la waaw <laughs> wa leen ñaanal ko baax <laughs> incha allah dina am tawfiq bu soobe yalla cheikh ummi ci ñu nuyu jabaram tamit bu baax <laughs> ummi ummi ha ah. waaw barke maam Seera Fall jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax. yaaram waaw noonu la demee. jaajëf jaajëf barke maam Seera oui pour yow mi nga xam ne da ngay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew ak Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala da nga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV c'est merci donc vous sur Ngoy TV ngir di am actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal. c'est le meilleur abonné vous am actualité ak information yu leer Ngoy TV dal